salaamaaleykum mbokk internet yi ñu safoo seetaan Click euh, Dakar 221 Dakar Midi Wassare TV te yaakaar naa jëmm ji jàkkaarloo muy Soxna Aida duñ ko présenté Sénégal duñ ko présenté àdduna yaakaar naa ñëpp xam nañ ko muy Soxna Aida mu Serigne Saliou Soxna Aida euh, yaayu Wally Ballago Seck Soxna Aida borom def gis Soxna Aida borom pommade yaakaar naa kon rek dañuy bàyyi euh, Soxna Aida mu nuyoo incha allah wax ak mbokk internet yi waaw salaamaaleykum àdduna waaye maa ngi nuyu sama buntu ci seexul xaddiim di sëriñ Mountakha Bassir di ko ñaanal gudd fan ak wér waaye di ñaanal sama buntu ci sëriñ saaliw mu njabootu sëriñ saaliw gépp di ñaanal Serigne Cheikh yàlla na fi yàgg lool te wér ci barke Seexul Xaddim noonu laay duggee ci laayee ni sama mbokk laayee ni di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm sàmm leen ci barke yonent yàlla Muhammad di ñaanal taalibe Cheikh yi ñaseen bàyyiwuma kenn waaye di nuru nag site internet yëpp soxna ay daang leen di ziar leen jox seen wàccuwaay waaye di nuyu àdduna wërngal képp ak diaspora soxna ay da seen xarit soxna ay da seen soppe soxna ay da seen fans mu ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu doxal soxna Aida seen soppe soxna Aida seen soxna Aida ñëpp mais nag ñu gën ko xam ne soxna Aida moom Serigne Saliou mais gis lépp diine ju xew rek soxna Aida da cee ñu ci bat gis nañ ne màggalu Serigne Fallou bi barki démb gis nañ ci def macha allah la ci ñu gis laay ni macha ñëw koo ci la ci lan mooy secret soxna Aida ak diine ji. waaw soxna Aida jullit la juddoo ci ñaari jullit. Mm-hmm. doon taalibe seexul xaddim mënumaa yaakaar sëriñ saaliw di am am par parloo man sëriñ saaliw laa yaakaar mhm. kon man xaritu tarxiye yëpp laa soppe tarxiye yëpp laa mhm. ñëpp may teral ñëpp ma bëgg te ku ne bëgg nga maa boole ci sa bopp mhm. moo tax mu demee noonu mu demee soxnaay da bu kër chrétien yi xewlee sax da ciy mën lii la yàlla dogal. Mhm. parce que nii la ko suñu borom bëggee tarxiya yëpp ma bëgg. Mhm. fans yeeg soppe yeeg xarit yeeg ñi may ñaanal ñëpp ñu ngi ci tarxiya yëpp tarxiya boo dugg rek yaakaar nga ni soxna Aida dina ci nekk mhm. waaye kii mooy yaay Seydina Mouhamed waaye mooy yaay Serigne Saliou waaye mooy yaay Serigne Babacar te mooy yaay Serigne Moutakha. lii la yàlla dogal. secret soxna Aida gis nañu ça fait deux ans soxna Aida dafa téye croix bi macha allah té ko duñu ne xew parce que ku xew dangay xew xewi mais yow xewoo dangaa ñëw téye dëkk bi lan la ak sa euh, diggante ak site internet yi lan la. man du buzz laay génnee. buzz day xewi parce que buzz day xewi. Mm-hmm. man damaa mën. Mm-hmm. mën nag du xeewi. dëgg la am dimbalu suñu borom. muy xale bi juddu woon quatre-vingt. Mhm. avion bi daanu ne réel imam ba teg ko daw. borom xoltu gerte yee màgg ki nga xam ne huit ans la démarré. Mhm. ci xoltu gerte yi toj réew mi du étranger fii la dëkk. goneeg pikin goneeg Yëmbal goneeg Parcelles. kon da nga wax si xottu gerte nga commencé seet. man ba même huit ans laay yor xelti gerte di tojum réew fi laa juddoo nag filaa màggee ci xoltu gerte laa tàmbale à âge de huit ans. la ma nit di romb ma man laa wax ban doom ngay am ci kàttanu yàlla kon loolu du juddu du jàngi du ndono loolu mbiri yàlla sunu borom la man damaa judduwaale indaale keroog bi ma juddoo daanaka kenn mënu maa supporté xam nga ne avion yi dañ ne riir la jawaat ci daanu. Mhm. bi teg ma daw. kii mooy xale mooy xale boobu nekk pikin gi. kon boog gars yi nañ defaraat seen toogaay at mu gën a ñëw. may gën di màgg suñu borom di ma dooleel di ma kàttanal réew mi lépp lu ma fi waxul preuve bi su ma waxee ba pare la gars yi di forforaat samay wax di ci teguwaat waaye lay jara dut baaram hmm. sénégalais di ko bàyyi xel kii mooy borom vaar yi kii mooy Messi kii mooy les rois suñ borom a ko jagleel nag. Mm-hmm. man damaa judd suñu borom balancé ma. pettaaw yi. ak lépp réew mi damay toog ba xaaju guddi gis li war a xew ci réew mi yàlla dimbalee ma ko nag ndax yàllaay sàkk te ba ma sàkkee munoon na maa def lu ne bu ko neexoon def ma macaroni wala pot de fleur. Mm-hmm. wala spaghetti mm-hmm. wala omo wala madaar mais daf maa def soxna Aïda mum Serigne Saliou te lépp lu may wax baraam laa ciy tuut maay borom vaar yi. nañu dem vaar seetaan samay vidéo A ba Z doog a dikkaat ci sama waxi tey. yi. am ñuy gis mais duñ am fitu wax fit bi foo ko jëlee fit bi. man lépp lu ma wax rek je assure j'ai assumé la preuve doo ko teg. doo ko teg kii mooy wax. moom la doxalal. moo tax it lu maintenant maintenant fu mu toll nii Sénégal moom kenn du la kenn kenn kenn euh, Sénégal ñëpp la xam fu mu toll nii euh, ñu gis temps yi yëpp nga génn ay information yu am solo jagleel ko Sénégal lu xew Sénégal yàggul tuuti. ñu gis marché bu nekk fële sa Dakar daal di lakk loolu nan na nan la ñëwee. marché bi am na lu ko jiitu mois de ci deux mille vingt dama leen ne maire yu bees maire yëpp lañuy raxas ay nouveau maire ñu ñëw raxas maire yi teg ay nouveau maire yi ma ne leen Sénégal day jël coupe bi lii mooy sarax bi. Mhm. bu kenn rey soow ñiy seetaan match bi nañuy naan soow. Mhm. trois à 1 laay génne avant match bi. Mhm. bañ dee mhm. am match nul dama génne deux match yi jiitu yëpp match nul. Mhm. ma génneel ni leen 2 3 1 ñu def ñaari match trois un ma ñëw ni leen final bi jeex na coow li jeex na dañuy jël coupe bi nañu dal na oto yi daw ndànk scooter yi dal ndànk mi ngi vaar. ak vaar ak soxna Ayda am na date am na heure am na temps am na seconde nanu ko seetaan ba pare doog a déglu samay wax yi tey lii mooy sama feer ci sama réew. Mhm. ma wax sarax yi ñu génne ko barki Dembo Ndiaye ma def sorti ne na Sénégalais yépp saraxe balaa le 8 mars. parce que yëngu-yëngu am na ma def ko ci TikTok bi parce que xajul ci seen réseau internet. Mhm. ndax yéen ñi xam nga woowuma leen yéen a ñëw dama leen a fekk sama kër. dëgg la kon man noonu la sama liggéey di demee. Mhm. nii laay liggéey sama réew parce que li ma yor. yàlla bi may juddu di ñëw ci réew mi suñu borom daf ma koo brasser ma indaale ko. la. ci lii laay liggéey ba xëy faatu. lan man samay maam dégg li ma la wax dafa am liggéey foo xam boo fa tolloo suñu borom booy juddu ci famille dafa am nu lay indi. Mm-hmm. ma ñëw fekk samay famille def mais dañoo mooñ lépp. suñu borom baranceel ma ko nag def ma benn man manaan xam nga dëkk bi nee naa la dinañ ko netatu bu yàggee tuut dinañ ko def benn suul. Mm-hmm. bu nu seetaanee li xew ci dëkk bi benn suul la ni def dëkk bool dañ koy bëjëk waaye man danoo boole bëjëk beeg suul bi yëpp def ma may ceeb bu weex suñu borom. indi li suñu borom nam ma ci. cey maman soxna Aida vaillante laay doon ba kara may faatu. wax nga ko sànq sa biir wax soxna Aida kenn du kenn kenn du ko vaar. moo tax it ba Wally Seck amee problème nga toog ñëpp di déglu ngeen leen am na ñoo xam ne def nañ dara kii di kii di Wally ko Seck du yàgg tuuti dañ xam lépp Sénégal yëpp dañu gis ñu toog tu ñu gis ki di Khalifa rappeur ak kii Simi Problème fu mu toll nii ñoo ngi kaso. ñooñu am na ñu leen fi jiitu woon. Mhm. ñooñu am na ñu leen jiitu woon ci Wally Seck. bari na fi. Wally saa yu nu xëyee duñ toog at wala 6 mois wala 7 mois. utuñu laso jéem laso. Mhm. jéem a laso viam. Mhm. waaye ku laso viam ma xolli ko def ci peinture bu marron. laso ko peinture ko raax ko. plafonné ko. maa yaayam yaakaar naa bi bii passé vidéo bi ma mujjee def dem leen vaar ak impro. nee woon naa ci du ma ci wax. waaw mais nag wax jot na maa ngi wax bu wax ji dakkut danaa ci dugal sama loxo te ci dugalee sama loxo danaa def na ma daan def ñi fi ne woon waali yaa def nii yaa sacrifié sa baay ñooñu bañ ma ñamee. Mm-hmm. ma ñam leen kenn waxatu. kenn waxatu damaa def ba mu saf. mag ñi nga xam ni danoo yelloo woon. Mhm. di ko ñaanal ndax jëwu leen lu tax ñu koy yàq. dëgg la ba nu duggee ci 18 nga mhm. damaa engage dugg ci seeni 18. Mhm. ñu tal leneen ku dul waali ku ko laal ma laal la. nee woon naa leen ca tabaski ga. ba ma koy wax nag ak di ko jël di ko def doom. yaakaaruma ci moom lenn. déedéet yaay booy ndax man lu ma waay di defal rek Serigne Touba defal na ma ko ba noppi. rek nga démb. Serigne Touba njagam président de la sarax. te bu réew mi yëngoo soxna ay daay aji saar ak sonko daaw jéeg sox daaw soxna Aida rek a génn ba àll bi nee xuus soxna Aida rek a dugg te laajul état bu mas si Sénégal waree jot son soxna Aida du laaj Sénégal du laaj président soxna ayda bu dëkk bi riiree mas si Sénégal di toj. duma woo ku ma recevoir lamb ji bi ma naan lu fi am lamb Modou Lo Ama Baldé kenn du ko fi teg deux mille vingt ba deux mil vingt et un kenn joxuma dara. coronavirus bi mu duggee ci réew mi ma ne màggal dina dinañ ko màggal fa la force corona depuis génn yaakaar naa kenn joxuma dara ndax ma kenn man sama lii may liggéey woowuma ci ku ma ne kaay yaay xool ba ma liggéey nga jekk ci wooma ma wuyu la mm-hmm. te yaa may fekk mm-hmm. ok maman ma relantiré ñëwaat encore ci problème Wally Seck ak simil problème ak ki nga xam ne mooy Khalifa rapport yaakaar naa defar nañ leen tey à 11h ñu ngi ci euh, euh, pële centrale euh, defar nañ leen tey central tey en tant que yaay en tant que tey doomu Wally Ballago Seck di sa doom ñuy teg ci deram loo xam ne lu ñaaw la ay saaga mu ne pat bal leen te yàlla tax di jéggale tey ñu tegaat ci deram ne Wally Seck dafa takk takk suuf. en tant que yow ba nga déggee loolu lan ka gën a sentiraat tey ci diggante Wally Seck ak sa xol. waaw soxna Aida ak xolam ak. waaw mais takk suuf bi est ce que itam. bon est ce amul. Euh, dama ne amul wala. parce que itam waruñu Wally non dama ne Wally da may déglu da ma laaj. Mhm. da may déglu Wally Baye Fall la. taalibe seexul xaddim am na droit ba am ñeenti soxna ñeenti soxna waaw. mu dëkk ci dëkk bi nag juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi màggee ci dëkk bi. Mhm. am fu mu def jabar. am dépasse mu jox jabar. am ndekki am añ macha allah ñan yàlla yàlla na ko yàlla yokk mhm. yàlla na ko yàlla fal kon waali lan moo am ñu ko ñaanali mhm. am kër ndey am kër baay dëkk ci réew mi dëkk ci société bi ami xarit ñu ko fi gënut a mën di takk ñaar ba ñett mhm. moom bu demee ba am soi femme mais waali day sol grand bu bam bu gudd wax Sénégal gépp maa ngi takki femme soxna ay da jaagar jaagari keneen ku mel ni soxna Ayda jaagar jaagari ah mais est-ce waaye nag jabar ji mu am jabar ji mu am. Mhm, soxna Aida koo mat njëgënaay gauche et mhm. soxna Aida soxna Aidara. Mhm. du femme recette du jabaru temps en temps. jabaru temps la. dañ ko takk mu sëy doon xale bu yaru xale bu baax mel ni mu war a mel. waaye na magul ñaareel. xam nga ñaareelam mooy lan ah dig si door. mais am na ñuy hmm? mooy ñaareelu waali. mooy ñaareelu mais am na ñuy wax ne dafa def en fait jikko star parce euh, que takkam du ko du ko ko célébrer mais takku ñaareelu da koy takk takku suuf parce que rumeur yi doon na daw avant Khalifa rapport di ko wax ak affaire yooyu daw est itam du dëgg Khalifa rapport gën ko feelal te amul ay faay moo tax lii am tey est ce que deful jikko jikko star <laughs> ah du man de askan wi koy wax. en fait askan wi xam nga mënuñoo nopp ci waali nag. Wally Café Touba la ku ko bañ doon ndékki mënul jóg ci événement mhm. saa yu su ne événement lay doon ok maman ñu demaat rek ci tuuti politique tey gis nañ macha allah li nga waxoon rek yaakaar naa mu ngi foon ci import ak feneen ak feneen nga ne maire yu bëri dañ leen raxas dina amaat lu bees tey maire yu gis tey yaakaar naa ci la leen Dakaaru yëpp lañ raxas ba mu set Géejawaay ak feneen ak feneen ak Barthélémy Dias tey bi nga ko waxee est-ce que am na maire yoo xam ne war nañ la tey pour féliciter am nga ñoo xam ne liggéey nga leen côté boobu kaay nag ma la maire yëpp samay xarit lañ ministre yëpp samay xarit lañ. xam naa ni ma amee ci citoyen ay clients. Mhm. am ko diaspora am ko international. ngay dugg sama kër gi gis ni muy mel fi nga yendu ba dix neuf. dëgg la ñëpp yaa ngi nii di doog a dugg. noonu la melee ci maire yi noonu lan may seete état bi noonu lan may seete waaye damaa toogul fii yor samay pettaaw. Mhm. naan ma saa ñëwoon na fi démb paata ñëwoon na fi démb. Ibrahima da am secret loolu moo a neex yow. sama Ibra Gueye su ma leen di jël dafa am heure boo xam ne man la ak ñoom. Mhm. parce que nag man docteur la dafa am heure bu may joxe garab ak heure bu may recevoir ak heure bu may faj ak heure bu may paas mhm. du góom boo ñëw ma xollil la ko mhm. loolu moom du laaju internet te du ma ci tontu kenn mhm. laajaat ma leneen ma bii saat la benn maman ba léegi rek ñu dem ci li nga xam ne mooy actualité muy làmb gis nañ ay combat fi taxaw gis nañ combat Modou Lo Balla Modou ak Ama Baldé échec na am na la joxoon loolu moo am am na combat yi taxaw Eumeu seen euh, ak euh, Bombardier Balla Gaye ak euh, ki nga xam ne mooy Boy Niang lan nga ci gis. dama yu neex. Mhm. làmb yu am pëngs. Mhm. mais est-ce que dina àgg. waaye waaye yuuxu dina jëf fu ñu ko yaakaare wu doon ci yooyu làmb man du ma wax ne mooy daal. dëgg la waaw naa waaw loolu sama naturel la. Mhm. ay doom doo ko waxee waaw. làmb ji ñu am ay yaay. am ay xarit. def seeni surprise kii jël tëgg làmb ji def ay surprise am mhm. kon làmb jàmb du ma ko bazar waaye sañ naa wax ne kii jàpp nañ ko ci gàllaaj mhm. sañ naa wax ne làmb ji su ma gisee ne day am ma ne day am su ma gisul ne du am du am mhm. loolu moom sañ naa ko suñ boroom ma mag lépp nag dimbalu suñu borom la ndax mooy dimbali ku ne ku ne lii kii mënut lii. Mhm. daa fekk booba. Mhm. sunu borom tegu la bët buy metti mbaa mu teg la bëñ buy metti mbaa mu teg la taabu digg ginnaaw doo gees. Mhm. kon sunu borom mën na lu ne ci ab jaamam. man nag lii la ma yàlla jagleel. te ki ma yaakaar nag. day fekk leget bu amul dara mu dippar ñi ko duy ko ba mu fees. dem bàyyi la ngay doxal. ndax fii ku fi doxal moo la may. kon daal lamb daal dina yiiw dina ay surprise yu doy waar. surprise yu doy waar. ok. <laughs> moo mën doxalal. tuuti si wàllu politique moom sax nga génne tudd nga tudd nga sax seen tur muy kii di Adji Sarr ak kii di Sonko. Euh, ñu bëri naan ay fu mu toll nii Adji Sarr français yi ñoo ko ñoo wala dafa am ñoo xam ne ñoo ko ngemb pour mu yëkkatiwaat histoire bi Sénégal. waaw suwaaru awra moom dootul am fii Sénégal moom. Hmm? c'est interdit. suwaaru awra. dootul dootul fi am. awra bi moo ko laal ak awra bi laalu ko loolu moom dañuy dem fañ ko bindee kayit ga ñu réglé ko fa mais coow loolu dootul am fii Sénégal parce que loolu moom ba mu méttee man rek maa duggoon wàcc ci géej gi def lu ko calmer mi ngi vaar. waaw yaay wax dina ne. cey sama yaay. kenn du moom. nañ ci nekk comme soos bis bi. nga soos moom boo bëggee dëgg-dëgg léegi mu croque. day croque. ci nii mbaa ci naa mais sunu réew mi dañoo nekk ci xàppi parce que dañoo soppi doxalin xam nga lan la président Macky Sall la mu diggee woon ak ñun dafa dugg ci góom bi dafa laal góom bi góom bi di commencé di neex kon xoolal fu ñu wokk dafa xasan kon kenn duñu ko yàqal dañoo nekk ci beneen monde suñu tali yu pare yi suñu pont yi ñu intégré dañ ciy bëgg dox sans stress te dañoo am stade bu bees am terre bu bees te bëgguñu di dugg ci ter bi di wuy ay vocalu coow ak ay ak ay bougan xoolal làmb ji croct showbiz bi. correct mais léegi si si benn benn question bi rek. tudd nga ko sànq mooy maanaam stade bu boo tuddee stade bees na xam nga lu baax a baax nu ñuy préparé muy sunu match Sénégal ak boo xam ne match qualification la euh, pour coupe du monde match boobu loo si gis. ñu yéenante jàmm. te bañ a yàq stade bañ a yàq nit ñi. Mm-hmm. bañ a yàq entraîneur bañ a yàq jour yi te ñu yéeneente jàmm ñi may waxal xam nañ li ma leen wax nañu bàyyi jour yi nekk à l'aise bàyyi entraîneur yi nekk à l'aise bu kenn suul loo wërtu suul bu kenn dog kenn bu kenn gàllaaju kenn fii sunu réew la ñun sunu liggéey bi na ma defoon ba ne leen coupe bi nii lay def ba dugg Sénégal lii mooy sarax bi te laaju ma état laaju ma jour kenn ma kaaf ku def sa liggéey ñu recevoir la ndax man kat delloo nañ ma njukkal ci ruq bi woo nañ ma ba ma ñëw ñu teral ma ndànk kon man du ma woo kenn naan ko kaay teral ma ak lii sama réew la lu ma war ci sama réew nag dinaa ko def bërxal ko ci internet bi Sénégal seetaan ko te bàyyi ko xel te xam ne ki ñuy woo ak ki ñuy wax népp ku nar a defal sa réew kenn du la woo da ngay def ba nu fekk la ca sa propre moyen amul jinne ku amul junni nooy amee jinne ku wokkatu ba sa yaram dagg nooy fajee ndoxum siti ah waaw ku ngoor sa ngóor a yàqu ba nga ba ngay las-lasi defaree ngóor a li sama liggéey la nañ ko bàyyeeg man waaye. buñ ma daal Sénégal daal mun nañ jàpp ne Sénégal dem na coupe coupe du monde ba pare. su yàlla na am dig si door. mais Sénégal yàlla nañ jël coupe du monde. Mm. te maa ngi ci. te buñ ci yeggee. nañ xam lépp dëgg la. du ma ci waxaagu. loolu sama yëfa maa ko moom. mais maman maman ba léegi rek ñu ñëw ci euh, li nga wax sànq rek ay ngóora ay awraag yooyu ñu gis ne maman macha allah pommade yi war na dëkk bi macha allah àdduna yëpp surtout rawat na sedd bi dégg naa nag Dubaay yow la ñuy waxtaanee ci pommade yi maman ana pommade yi ak essence yi fu mu toll. waaw man bi ma demee Dubaay xam nga Dubaay dafa am ñett voyage boobu. dégg naa toj nga Dubaay man xam naa lépp. ku ñu woo. jasolay buuru mbaa daan moo ma ko wax. ku ñu woo ko tasee yow. ku ñu woo ak ku dem yor sab saag rek wàcc aéroport ba. bokkul man dan maa woo. <laughs> xam naa ma ci hôtel bu riche. xam naa loolu. ma dem Dubaay toj Dubaay ñibbi si ñëw toog. loolu laa dégg. ci Boumadi. ni laay tojee sedd bi. naari ngénte yi ngay romb bari na de. waaw temps yi kay. dëkk baa ngi dox nag. ana Pamade ki am 20 ans. fi mu ne dafa jeex amul. dafa jeex naa gaa yi commande tey ci laa nekk tey ci guddi gi tey ci laay liggéey suba ma xëy yeggali. Hmm. ginnaaw suba ma commencé joxe. gaa yi jënd Sénégal yi man la ñuy xaar sama kër laa koy jaay amul boutique de. dëgg la posté wu ma ko amul feneen neexal. dafa maa ngi non publicité tuba ba waat yee jaay boppam. dëgg la <laughs> vidéo yi njëkk ya mooy jaay yoon. mooy jaay UBS yi. Mhm. lu des. mais mais waaw man sama problème mooy lan mooy lan mooy sa secret lan mooy différence ak ak ñeneen ñi parce que ñeneen ñi maintenant léegi kenn siiwatu. ñooñu xewi nañ kenn mooy ñëpp su maam su su problème ñooñu ay nit yu bës lañ xew. man du tudd fii nit. man maay tudd man maay am fit sa doom. yow yow à la man du ma fii nit seetal la nit taxaw fii na nit maa la bëgg ngay las lasi wala ngay mel ni mburum poñse àdduna yëpp dañ lay xam. nga jar li nga doon fexe naa daal ba marqué sama empreinte ci réew mi ba nga xam ne sénégalais bëgg nañ ma pour ñu bëgg la nag du looy incarné waaye man xam naa ku ma bëgg sax sëñ bee tax nga bëgg ma ndax damaa xër ci sëñ bi li ci des mooy taalibe sëriñ Saaliwu laa li ci des mooy ci sama réew laa nekk li ci desaat mooy bala ngaa waliyaan sa dëkk dafa tëggul ku mën dëgg def li ngay def ci sa kër ngay toog def ko te doone ñëw leen doone jox leen ma sarax képp ku ma fekk ci samay sarax nag dinaa la jàppale te réew mi xam nan ma ci social. Mhm. ta lépp lu may sociale maa ko moom koor gaa ngi ñëw. avion ceeb bi mhm. ton yaa ngi ñëw suukar saa ngi ñëw vidéo yi yëpp a ngi ñëw xam naa nit ñi nañ ko gis ci baana mhm. écran bi dinañ ko jàllale mhm. ndax koor gi yegg si na soxna Aida nag loolu mooy objet ci loolu lay dund bu mbënn bi ñëwee ma fexe ba mën ci bu dëkk bi amee jafe-jafe ma fexe ba génn def samay sarax xool li saafara réew mi ma saafara ko te duma woo kenn ku ma ciy fekk yaa ma ciy fekk waaye woowuma kenn ndax fii Sénégal la te fi laa yeewoo yaay laa la te sama sëriñ bu baax bi ki nga xam ne moo def moo ne woon baayam jox ma li nga def ci mag ñi ma def ko ci ndaw ñi kon kii mënumaa yaakaar sëriñ Saal di doon cuune wala di doon yambar wala di gàccewal sama bopp ñu may yóbbu vaar may rus wala sa mën na ko la vaar saa yu ñu koy teg damay sëgg ca kaw. Mhm. di doxal lii la yàlla de. ok so yaakaar naa comme li nga wax rek yaakaar naa muy soxna Aida mu Serigne Saliou Serigne ko xam-xam ko social ko xam ko ci ndimbal ngay ndongoom léppam nag yaakaar naa di di léppam tey ku la xam-xam la ci ndimbal ci social yaakaar naa man mi la xam bu yàgg xam naa social macha allah lépp te lépp social la tey soxna Aida lan ngay waajal instant yi ni ci koor gi. waa di xam ne la ma defoon daawaataati jéeg def ko daaw jéeg def ko daaw yokku na macha allah. ku am sa lettre indil nga ma ko ku am sa ordonnance indil nga ma ko. waaye suñu borom ma ciy defal tawféex ba maa ngi koy def. Mhm. may ñaan nag sénégalais bu kenn xeeb li nga yor. Mhm. kenn ku ne fa nga dëkk man ngaa fexe weeru koor gaa ngi ñëw si buñ ci yàlla yóbbee di ñaan yàlla yóbbuñ ceeg jàmm. Mhm. na ku ne dimbali ka nga dendal te lépp loo xam ne rek bu lekk mukk mburu mu am chocolat am beurre te ka nga dendal amul mburu mm-hmm. xaajal beurre bi ak chocolat bi jot chocolat bi jox ko beurre bi mm-hmm. wala nga jël beurre bi jox ko chocolat te mm-hmm. xam ne biir du fenn ñu jàppalante dimbalante te xam ne sunu Sénégal nekk nañ ci moment yoo xam ne jóge nañ ci ay tolof tolof ci at yi ñu jëm yi ñu mujj yi mais at yi ñu jëm mën nañoo dem bànneex mën na nañoo dem mbégte ñu bàyyi gor ñi ñuy yàq ndax kat waali tey leer na ma ni fa mu nekk ñii am jafe-jafe du moom mais ay avocat am la mhm. ak ñi ko sopp ñoo mën a tula supporter métti mhm. métti bi mhm. ndax leer na ma ni fa mu toog nii xolam jeex na xolam xari na mais tegu ko boppam parce que lañ ko tegoon moom fàtte na ko ba yëg ne nit ñi laal nañ leen nañu xool jëf ni mu mettee ci xol ñuy bàyyi gor ñi ñuy tilimal di bàyyi gor ñi ñuy yàq te xam ne kenn ku ne toll woon nga ay jamono Sénégal bëgg la àdduna bëgg la te nit nag bu la sa yaay liggéeyalee sa kër baay mhm. na la wóor ni loo romb ci mbedd mi mhm. faral te xam ne sa daqaarañ ci di nga ko màcc mhm. te ñu muñ te xam ne yàllaay tege wasalaam sama dernière sama dernière question rek moment bu ndaw muy dama dugg sànq depuis onze heures ba léegi ñu ngi fi di la xaar dama génn sànq am ci boutique ma demoon fële fekk fa ay borom sareet may waxtaan ak ñoom ba tudd la ñuy wax ci lu rafet te ay borom sareet lañ ñuy wax ceew lu rafet sa dëkk sa sa sa sa ak dëkkandoo yi parce que boo ñu defoon micro-trottoir tey vraiment lu rafet la ñu wax ci yow. waaw man nag man nag samay dëkkandoo amuñu sens interdit ndax su ma liggéeyee su ma liggéeyee dix damay génn ci mbedd mi sama waa koñ gis ma parce que nit am na nooy mel ci sa koñ. jël sa njaboot yamale ko njaboot ñi ci biti mhm. nga xam ne ku ne ci kër la jóge te ku ne ci yaay la jóge mhm. nga jàpp ko ni doom mhm. mën naa am bu la séenee dina am lu mu la rusee man nag dañ maa waaye ragaluñ ma dañ maa jàppale ndax danoo xam ne seen dëkkandoo laa te danoo xam ne lépp lu ma am ci sama liggéey ci askan wi lay dellu moo tax samay dëkkandoo damay génn di saafoonteeg ñoom parce que oto yii di rang seen buntu kër am nañ fa place waaye jéggal nañ ma ko toog di ma gardeel oto yi bëgg nañ ma di ma gardeel sama njaboot ndax maa ngi ci biir waaye ci biti dara naqariwu ma fa ndax samay dëkkandoo parcelle daal su ma fi dee génn keroog ba may dem Grand Théâtre mhm. ku dugg ci internet bi xam ne roi des arènes pastel bu jigéen bi mi ngi génn kon man Sénégal la mu bëgg ku ma bëgg nag sëñ bee tax nga bëgg ma mais man aw ma solo mais tey nag damaa sañse de dëgg la non macha allah foofu laa moo tax le 8 bi maman ñu gis ma allah sargal jigéen sa doom def loo xam ne vraiment àdduna yëpp ma koy coow coowee dem tànn xaar mbay ma jaaga ca dem toog ak moom feetoog moom la 8 mars defal ko teraanga ba nga gisee image lan nga yëg. génn fa dem campénal. génn fa dem campénal bay jooy. wër foofu yëpp xam nga mooy li may wax. tey vraiment bi. gis nga yenn saay réew yàlla jox la koo xam ne ku jar a la nga di ko fowe ba keneen coppatiko gis nga ñun li ñu am ci sunu réew ci waal yi. Mm-hmm. nit ñi moom lañ waa Amérique moom lañ amoon ci Michael Jackson. ba téye mm-hmm. bu la yàlla teralee. te taraanga ji lépp lu ñëw ci sa réew lañ koy tiitaroo. Mhm. man damaa feer ci dem Maroc wala ma mhm. feer ci dem Dubaï wala ma feer dem Amérique. Mhm. ñu ni ma foo dëkk ma ne Sénégal. dëgg la. waali génn ci télé ma ne eh sama doom ñu ne ma la centre de peuple. Oh. loolu sagu Sénégal. le sort du peuple. gis nga sag. kenn du ko fawe. dëgg la tiitar. kenn du ko fawe. waaye damay murit di taalibeb Serigne Saliou la. xëy na moo xam ma xam tiitar. dëgg la moo xam ma xam sagu. gis nga sagu akuk tiitar akuk sant nit bu ko amee da koy kañoo. waali yàlla na ko yàlla defal jàmm <laughs> tiital rek la def mhm. sagu rek la def li mu war rek la def mhm. li mu war a def rek la def te mhm. saa yu xëyee xelam ak ci li mu war a def nan ko jàppale te ñaanal ko te gunge ko loolu rek laay ñaan Sénégal moom doxalal le 8 mars bi dama koo ñaan ñu fi seen yaay yi nekkatul te xam ne man soxna ay dem sama yaay nekkatu fi te ku ma jaayoon sa yaay ma jënd ko di wax doom yi nañu fàggandikuwaat ci waajur yi di nanguwaat ñu ilif leen delloowaat seen lépp seeni i waajur. Mhm. te waajur du la dugal ci kàmb gu lay gaañ. du dugal ci kàmb bu dul bu waajur yi defaraatan sàmmaat mhm. taxawalaatal jaaj yi amaana police yi dina yaraax du xat ku defa nga fa nag ku defula nga fa. Mhm. waaye di ñaan. képp xoo xam yaa ngi dox li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom te ñu demante jàmm te ñaan yàlla daal yàlla def ci jàmm ci réew mi ah réew mi neex na de yàlla na gën a neex. Mhm. ci kàttanu yàlla. jërëjëf dégg ngeen it mhm. di leen ñaanal lépp luñ fa ñàkk. Mhm. yal na leen ko suñu borom jox. waaye nag waroon nañoo génne ay sarax. ndax vidéo yi bi ma koy wax. booba dara xewagul. dëgg la moo tax may bi. soxna Aida Saliou. boo duggee ci TikTok bi di nga ko fekk. Instagram noonu. chaque jour ma dugal ay vidéo pour di jiital yoo xam ne ay sarax la te lépp suñuy njëriñ la. di ñaanal ñëpp nag di jéggalu ñëpp. jërëjëf mbokk yi li ñu amoon tey ak soxna Aida mu Serigne Saliou kon xam naa ba beneen yoon rek numéro international bi képp koo xam ne euh, da nga ko soxla rek nga nekk Amérique euh, foo nekk ci àdduna bi rek incha allah boo ko soxlaa incha allah di nga ko jot numéro bi daal ci baat écran bi jërëjëf merci beaucoup